Libra. Corona aussi waatal na ma ni ma li mu nar ci numéro bi mbindeef mënu ko ko tee def capable na lu nekk. sa xel dafa dal nii moo tax nga tëdd. sama papa Fall wax nag Cheikhouna yor na numéro ndabbu ndabbu sama nunu doom guddi na nabu tëdd na su ma liggéeyee suba incha ba wàcc dinaa woo nabu mu toog nga toog ma toog ñu wax ci loolu d'accord mais Cheikhouna naa est temps nga arrêté ko parce que moom tous les moyens sont pour mu détruire ñu il faut nga jóg ci moom nit kese la Cheikhouna daf ñu mën a dëkk dinu xañ sunu jàmm moom mooy kan dangay toog rek bàyyi ko ci li ko neex ok Cheikhouna c'est le cadet li muy def ni yëngalu ma te xamul tax daluma ci kaw boobu ba léegi dañoo bokk maag moom benn butit loolu rek laa ci xool damaa ko mag mais man ci ma jaar je jure sur la tête de mon fils que bu fa jaaree sànku Bébé, des lions affamés ont traversé mon chemin teewul ma xuus jàll dama ko talul sama entreprise laa tal jamono juñ toll nii bu ma ko lijjantee ba mun a cocc Cheikh ma dina xam ne lépp dëgg la. toogal fii nag di jaay njàmbaar ak di yaakaar ne gaynde ga ba ñu jamee la ginnaaw gis nga sa entreprise bi génnew ma ci naa ndax loxo mu ngi ci lu ne pour détruire la te duma ko nangu boo ko mënul lijjanti man dinaa ko lijjanti naa du yàlla du yonent nit njaay la il faut que mu arrêté def nañ séparation du corps ber nga ma mag sama doom terewul saa yu ma xëyee fekk depanse bi fii ci kaw taabal ji te su ma toggee doo ci dugg sa loxo su fekkee mënoo ko doo fi lekk tëyal sa depanse gannaaw yow fii nga may romb dem restaurant di fa lekk ci te jox ma sa dépense bi soo ko mënatul rek nga tëye ko. yow bu ma la joxee dépense wax la li ma bëgg a lekk di ko togg. ba mu neex. di ko togg. ba mu neex. <laughs> décidément li nit ñi di wax dëgg la kon jigéen jigéen ay garabam mais bi c'est irrévocable duma ci dellu gannaaw yow ñaata ati sëy mosuma laa jox dépense ba nga ni ma lan nga bëgg a lekk ah parce que am na ku war a ñëw gis nga yow buñ la sangoon gën gi sang ba ñépp nangu ne set nga boo taxawee sama kanam doo set te dina ñuy ay jirim yàlla boole ñu ak ñu yow dafa war a rafet bu plus reculé mënatuma dellu gannaaw yow ku la xool xam ni wéroo ay sékkalu daf dafa nekk sa bopp bi ba léegi barki Demba Ndiaye laa ñëw sa kër nga dàq ma tu oses de venir chez nous lan nga fi def. un ignorant comme toi judd ne lii fajoo dara kenn seetu la sa yaay lay seet. ignorant bi nga wax moo lay dàq ci biti. parce que sama yaay sama yaay nekku fi. Mbaye mooy dogal. fii man maa fii taw ndax lu fi dee man maa ko rey toogal Cheikh na sa yaay laa soxla woon waaye li nga wax tëgg la taw mooy dogal waaye ñaar yi laa la bëgg a Cheikhouna lan laa la def. yaa ngi may delloo jamono yi ñàkk jamono yi ñu may néewale doole jamono yi ñu may toroxale tourné tourné woon naa siècle boobu quoi puisque woo nga ma ci dinaa ci wax doylu ma ci yow nga dem sa yoon moment bi ma la soxla maman bi ma bëgg nga toog ngir dooleel ma ma tukki nga yàqamti woon ma ne la boo fi fanaanee yaa fi bàyyi sa bopp benn mu nga jël say bagages dem toroxal ma mais maman bi doyal naa ci yow mais dama lay wan na rek li ma yor boo ko fa xaarul du la fa fekk ndax li taxoon ngay dem ci feneen léegi yàlla dénk na ma ko muy xaalis d'accord deuxième question bi mooy lan la la Jojo def. eh may ñëw wax Jojo fii ci kër gi. yow du ma bëggoon naa moom ci boppam mu toog fii posé ma ko ñu réglé ko entre homme et homme bis dafa ragal ba yónni jabaram dinaa la wax dafa am xaalis di ko xeexe di jaay doole. di toroxal néew di doole yi man ma si ñi ñuy toroxal moment bii nag dama koy wan ne le soleil brille pour tout le monde ci stade boobu laa tolloog moom. xolub ki ñaan dina lekk borom ba mu jeex te du ci dara Cheikh naa yow tu n'étais pas comme ça ku la xam laa. Tu boo seetloo nag ba nga commencé yàq ba tey dara yàqu fi day gën a baax nga xam ne yàlla rek a mën gis nga yàlla nag bu tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé dalay effacé tracé doo ko fekkee doo ko tal Jojo nag du moom ngay jàkkaar lool dinaa ko boot sama ginnaaw jàkkaarloog yow ndax yow àddina benn faiblesse nga ci am muy man te wax naa la ko dama laa xam foo kupp baat battre lenn rek ma naqari man ci sama àddina mooy sa turandoo boobu may boot di sang di couche di defar xanaa loolu sax sa yaram war na cee mën a daw. yow Jojo moo la gën. gënu dalaa gën. da ngeen a bokk biir ba pare la gën ca biir ba Jojo jël ko ndax nduroowut ak yéen dara du yow du sa ji nga xam ne butit la kenn soxlawu ko. kon yow wéroo fu mu ñu gënee. yow mbaq nga bay saf de. xam nga lan laa bëgg nga xam ko fii àddina la nga nekk nit ba nga nekkoon jéem a defar sa vie moo am importance yow tu es à être papa. per de famille da nga ne da am dignité ak valeur te da ngaa bari xaalis dangay jënd kër koo dëkk ndax la ngay suturloo as néew boo tëddee bu tawee du senn jojo moo ko jënd moo ko moom loolu rek laa am ci lu ma lay wax da nga xoolaat sa bopp bu baax affaire bi du jojo de man mii la. hey Soumboulou dooley jigéen mooy saf làmmiñ làmmiñ ngeen di mottali ko te boo ñàqee da ngay bari wax kër gi boo demee nga ne Jojo ñun tey duñ fi fanaan ndax am naa lu ma jënde kër ça vous arrange ngeen jaay kër gi di ngeen ko soxla pour seen entreprise bi nga xamante ne nii à deux doigts mu dem fayit te nga ne ko entreprise am boobu bu fekkee da koy jaay man taawu ndeyam bi mu reconnaître man mi nga xamante ne lu dee ci kër gi maa ko rey man mi jëlul sama jabar teg ko sama kaw yaay dinaa ko jënd. même pas un rêve entreprise bi bu doon raam sax du yow yaa koy jënd te jarul ngay tiit foo jaar ba nekk taawu ndey Jojo la cee mën a daw. yow moo la gën. Jojo da laa gën da ngeen bokk biir ba pare la gën ca biir ba Jojo jël ko ndax nuroowut ak yéen dara du yow du sa raq ji nga xam ne butit la kenn soxlawu ko. kon yow wéeroo fu mu ñu gënee. yow butit mbaq nga bay saf de. xam nga lan laa bëgg nga xam ko fii àddina la nga nekk nit ba nga nekkoon jéem a defar sa vie moo am importance. yow tu es appelé à être papa père de famille danga nga ne da am dignité ak valeur te da ngaa bari xaalis dangay jënd kër koo dëkk ndax la ngay suturloo as néew boo tëddee bu tawee du senn jojo moo ko jënd moo ko moom loolu rek la am ci lu ma lay wax te nga xoolaat sa bopp bu baax affaire bi du jojo de man mii la. eh Soumboulou dooley jigéen mooy saf làmmiñ làmmiñ ngeen di mottali ko te boo ñàqee da ngay bari wax kër gi boo demee nga ne Jojo ñun tey duñ fi fanaan ndax am naa lu ma jënde kër ça vous arrange ngeen jaay kër gi di ko soxla pour seen entreprise bi nga xamante ne nii à deux doit mu dem fayit te nga ne ko entreprise am boobu bu fekkee da koy jaay man taawu ndeyam bi mu reconnaître man mi nga xamante ne lu dee ci kër gi maa ko rey man mi jëlul sama jabar teg ko sama kaw yaay dinaa ko jënd. même pas un rêve entreprise bi bu doon raam sax du yow yaa koy jënd te jarul ngay tiit fooy jaar ba nekk taawu ndeyu Jojo Jojo mooy taaw mu neex la. mu naqari la amal xolum muñ dara duñ la ko may. Mbaye. kii elle n'a rien grand li nga wax loolu nga war a def jëndal entreprise bi mu jeex. dama lay jox benn conseil Sénégal gi bul xeeb xale ba mu ne la yàlla na nga dee nga ne amiin waaye bul xeeb nit ba mu ne la ñaata nga koy jaayee nga ne ko amoon njëkk. yaay c'est le gap qui respire yow jeex na gérer rek ñoom ko comprendre Yes. Yes. Goodbye. Call travel agent and book me a ticket to Dakar ASAP. MG. Yes. Right now. waa orange envoy nañ ma mail xam nga lañ ma wax ay am nañu beneen partenaire bu ma gën a crédible dootu dootuñu liggéey ak man. keneen la ñuy liggéeyal. comment naka lañ mën a douter ci sa crédibilité. peut je ne plus crédible. Aïda, c'est bon. C'est décidé maintenant. damay jaay entreprise bi oui. finalement soo jógee nga wool ma maître Madoki nga ne ko demee tôt le matin na ñëw fekk si ma fii ma wax ko modalité yi mu jaay entreprise bi. suñu Ousseyn nga yàlla. je crois en Dieu oui. gëmmal jàppal ni kon lii du woon sa wërsëg moo tax jotuloo ci santee ko yàlla bu baax xëy na tey boo ci jotoon am na malheur bu la waroon mën a dal ku delloosil bu baax sa xel ci yàlla. man je suis de tout cœur avec toi et je serai toujours avec toi. mais jàppal ne bu yoon jeexul waaw surtout ma sa jeex. Aïda woowoon na maître Madoki demee tôt matin na ñëw je encore une fois l'entreprise en mën nga si bu baax boobu ba léegi yaa ngi ànd ak man jàpp te bàyyi mu métti lool nag nga toog ay weer fayeekuloo teewul yaa ngi toog pourtant sa xam-xam bi mënoon nga ko yóbbu feneen utilise ko fa am fa sa xaalis mais defuloo ko à partir de maintenant libéré naa la dès demain lancé naa appel d'offre damay jaay entreprise bi. non. soo gisee beneen liggéey def ko. Adja. c'est valable pour toi aussi. jigéen nga mais teewul ne am nga jom. te mën nga sa liggéey kenn mën na laa jëriñ Kadia parce que tu foo ko talal ñu jël la te yow tamit dama seeti feneen foo liggéeyee. monsieur tant que maa ngi ak sama bakken bii duma liggéey kenn ku dul yow maa ngi sa ginnaaw tey suba ak gannaaw suba. Moi, je suis fidèle comme une proue. Jamais, je dis jamais au plus grand jamais, je ne vous abandonnerai. Nous allons gagner ou perdre ensemble. N'est-ce pas, c'est ce que vous m'aviez appris. Donc, je ne vous abandonnerai jamais. Allez chercher du boulot réel. ñu après ñu lekk. d'accord donc du ma jël sa temps yëpp c'est juste pour wax la rek nga xëy na xamoo ma wala yaa ngi may doog gis mais man ak Jojo ñoo bokk benn ndey mais man considéré ma ko parce que nooy mën a bokk nit ndey mu bàyyi ba nga voyage ñu liggéey sa jabar tas sëy ba nangu sa jabar ose taq ko. quoi. loolu la Jojo def. sa grand frère yow mu nangu sa jabar. man considéré ma ko comme grand frère parce que xam naa li mu def ba sumbulu nangu ànd ak moom sëy ak moom maraboutage da si am doole nekk Europe ñu jaxase ma mënumaa ñibbisi sumbulu benn baat laa ko wax mooy boo fa fanaane yaa fa bàyyi sa bopp moom it yàqamte woon na loolu parce que teg na woon deal ak Jojo dem nangu sëy ak moom ba nii du ñëw ci seet si yaayam yaayam du lekk dërëmam ñun bu ñu lekkee xamul bu ñu lekkul xamul man dinaa ko considéré considéré ma ko comme frère mu monte jabaram nag sumbulu mu réew trop xamati di wax sama yaay lu ko neex moo tax sëy boobu bala maa am lu ma neex dama koy tas tasuma ko nag parce que dama nopp sumbulu non mais dama leen di wan na réewande kenn du ko jaay si dëkk bi dama la ci yaakaar nag pour nga jàppale ma ci qu'est-ce que tu en penses. li nga ma wax ci Jojo mi euh, bett na ma parce que wanu ma loolu mais par contre jabaram effectivement dafa réew. Hmm. parce que daf may fekk ma toog mu tiim ma. Ah. di ma yàq lu ko neex en plus elle me connaît pas di ma traité de fenkat. mais dañu réew yow da liggéey foofu. waaw parce que ñoom jàpp nañ ne ku leen di liggéeyal rek. baadoola nga ñoom ñooy euh, les bourgeois quoi dañ lay jaay doole loolu xewi na Sénégal gi golo wàccal baabu ni yëg foofu lañu toll après yow nag sa réaction nii toog ko seetaan. moo tax li ma def nii tant que fajuma ko duma ma am jàmm. donc jox naa la opportunité nga faj ko jigéen moo baax si jigéen elle est jalouse Soumboulou xam naa ko dama bëgg nga rendre ko jalouse ba mu yaakaar ne Jojo day doxaan. parce que jabar bu nekk xam nga sa parfum jëkkër jabar bu nekk boo ubbee sa chemise jëkkër fekk fa rosa jigéen coow dina am dama bëgg nga def bruit loolu yow yaa koy def ci seen néegu sëy tu peux le faire. bu dee rendre jalouse rek ma sa xel dal parce que man defaguma dara te elle est jalouse. ah c'est normal tu es belle. merci. Euh, quest que tu fais dans la vie. bon man formation communication laa def en même temps je suis modèle donc boo gisee may liggéey ci kër gi c' est juste parce que sama yaay dafa feebar. et dama ko bëgg jàppale. mais du ma nangu kenn di yéeg sama kaw bopp. Hmm. promotion canapé sax xaar ko si Jojo parce que dañuy gëm ne da ñëw pour liggéey si <laughs> loolu xewi na loolu man dinaa ko dindi Sénégal man Cheikhouna donc am na ci lu ma yaakaar ci lu ma war a nekk li nga jàng xam ko yor diplôme am man am naa si solution mais li ma la wax defal ma ko. problème. xëy na xamoo ma bu baax mais je suis le cap qui respire. en nga def si sa yenn besoins yu ndaw yi ce n'est qu'un début Bienvenue dans le cercle privé. Merci beaucoup. suba su ma xëyee damay ñaan yàlla sunu borom mu musal ma ci pexe noonu damay julli ñaara làq yëkkati sama loxo ci kaw ne yàlla musal ma ci samay noonu noonu baaxul te ci sama famille la njëkk sama famille la commencé doo ko dem ci sama entreprise Cheikhu Umar man ak moom ñoo bokk benn yaay sama noonu la fii nga toog la nit toog maag sama soxna toog fii du dëgg mu xamul ñu ne Cheikhu Umar jël na sa numéro téléphone juste une question woo na la oui ou non non lenn laa lay ñaan bis bu la wooyee téléphone soo xamee na moom la raccroche ton bis boo ko namee gis soo jàkkaarloo ak moom wëlbatikul dem sa yoon ndax yaakaar naa ni. bu ma doon xeex tey man ngay sotle ndax loolu laa la na sa xel daal bu ma wooyee du ma ko wuyu bu gisante tamit du ma gisante ak moom na sa xel daal kon. d'accord merci beaucoup. Diouf lan moo tax nga naaj. Nabou mii elle m'inspire pas confiance de toute façon li nga ko doon jëlee ci kër gi mooy pour mu toppatoo sama doom parce que sama xel neexul léegi nag tout va bien sama doom sax li mu koy gis bareetul alors lan mooy problème bi da ko dul bàyyi mu dem. mon bébé kii bu fekkente ne dërëm lay am fii sax di ci dundal jabootam walla ay waajuram dinaa ko ko jox ngir am ci yàlla sunu borom maa ngi ciy jaamu yàlla bu baax defuma waxuma lu tax mu war fi mën a jóge ndax demal si sa liggéey. moom comprendre naa ko de sama mag la mais yow mi ngi fi indi bés boo demee ba bëggatoo ma nekk fii ci même jour bi dinaa dem sama yoon. bis boo demee ba def lu ma naqari bis boobu doo fi fanaan et di nga dara naqari ma ci yow kon toogal allez vas tere tere mu të bàyyil mu gis bis dina ñëw li la nabbu di def dinga ci teg bët ci mën dara bàyyil ñaaw njort bébé gis nga doomu aadama biy dox ànd ak ñaaw njort da ngay sonn ndax nit day wax A nga yaakaar ne bee la wax da ngay sonal sa bopp bàyyil ñaaw njortu c'est pas recommandé par l'islam dañ ko tere et puis sax nabu def ak lam dul def ak loolu yëpp duma ko fi xaar gis nga ni ma duggee fii sama xol neexul je vais bien du tout jël naa décision jaay sama entreprise bi. c'est bon c'est fini c'est acquis j'ai appelé mon avocat lépp lu war mu ngi koy def ma jaay ko li nga ci am ma fay ci samay bor li ci des nga takk say bagages ma takk samay bagages ñu ñibbi Ohio ga ma jóge woon. Jojo dama ne entreprise bi doo ko jaay te lu leer laa la wax ba nga ci tolloo lu baax rekk nga fi def bu la ko yàlla xañee da ngay toog nga jàkkaarloog nit ñi te muñ dawuñu de. dew ma Ohio demoo sama doom demul te entreprise bi doo ko jaay. dama koy jaay. baax na parce que c'est mon destin. sama destin mooy ma jaay entreprise bi Soumboulou sama destin mooy ma jaay entreprise bi te dama koy jaay.